lépp lu muy tàmbali mu tàmbalee ko ci alquranul karim tomb boobu ci laa koy tàmbalee ci aaya boo xam ne nii day tegtale ne euh, lu ñuy wax système éducatif bala moo am nit ñi dañ fee nekk ba noppi li wolof di wax bala nga ne naam ne fa day ma ne aaya woowu moo ñu fi nekkal ba noppi nag ñu doog ne naam tomb ba ci tegee ñu taarif mooy xamle ci man ni ma ko déggee système éducatif mooy lan bu tomb boobu jeexee ñu dem ci beneen tomb boo xam ne day dama ciy leeral système éducatif boobu bi ñu am fii ci senegal fum jóge ak kañ la fi dugg ak lu tax mu dugg fi bu tomb boobu jeexee ñu waxtaane tomb boo xam ne nii day leeral système bi li nekk ci biir contenu bi li ñuy jàngal gone yi ndax lu ñu leen war a jàngal la wala lu ñu leen war te jàngal bi ci tegee ñu jàll ci làng biñ koy jànge ndax yomb na ñu jàngee ko ci langue boobu wala déet bu ñu jàllee ci beneen tomb mooy effet yi mu mën a am effet yi mu mën a am ci nit ki njàng mi effet yi muy def ci nit ñi te ñu yàgg seetlu ne mi ngi ko ciy def xaj na du ñee ci ñëpp la koy def te ci jamono yu ne la koy def waaye depuis bañ koy dalee seetlu li muy def ci nit ñi effet yi muy def ba ci tegee mooy débouché li ñuy tuddee ay débouché académique nga jàng di progresser di dem ak li ñuy wax débouché professionnel maanaam nga jàng ba pare am cëb liggéey loola tam ñu wax ca dooga nag indi nag lañu koy tëjee mooy comparer système boobu fi nekk ak bi fi yàgg nekk ban moo ci gën a jëm kër loolu mooy waxtaan wi su fekkee waxtu wi dinañu ko may te yaakaar na dinañu ko may ndax tomb yi may développé du yaatu lool ba ci jëkk yàlla dañoo jàngal ci alquran ne yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa untha wa jaalnaakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda allahi inna allaha alimul khabir aaya boo ko daggatee da ngay gis ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa yéen ñëpp ci kenn ngeen jóge muy aadama alayhi salaatu wasalaam man nga ne sax ci seen ndey ak seen baay waaye loolu boo ko waxee yàlla am na koo xam ne andi na ko min ummin wa biduni ab mooy isa alayhi yonente yàlla isa alayhi salaatu wasalaam te mën na ko andi ci luñ xamut itam moo tax waaye boo nee ñëpp ci aadama lañ jóge doo juum annaasu min jihati tamsili akfaau abuhumu aadamun wal ummu hawaau fa in atayta bi faxrin min dawi xasabin yufaaxiruna bihi fa tin wal ma ñun ñëpp ci aadama boobu lañ jóge suñu borom ne kon ci laa leen jële kon bu kenn ndamoo ci sa morom ne maa la gën waaye dina wax ci aaya wi naka la ñuy gënaatee mu ne wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaila dama leen a def ay giir ay peuple ak ay waaso ñii ma def leen ay africain am luñ mel am luñ xam am luñ am am luñ man ñee ay indien ñee ay tubaab ñee ay chinois ñee ay laneen ak laneen nee na noonu ma leen daggate li ma ci jublu mooy li taarafu ngir ngeen boolowaat nekk benn ngir ngeen xamante ndax xamante jëflante xamante moo koy jiitu koo mën a man mii tey su ngeen ma xamutoon du ngeen ma woo fii tey xam gi mooy jiitu lépp moo tax suñu borom mooy loolu mooy nuqutatul intilaa fa ngay da ngay dalee da xam nit ki la ngeen di jëflante nga doog koy mën a jëflante ak moom Afrique bu amee lum am am lum xam am lum man Chine am lum xam am lum man te loole ñun xamuñu ko mënuñu ko nañ ko wute foofa la lam xamul amu ko mënu koy it mu wuti ko fii keneen ku nekk def noonu mooy li taarafu ku nekk na jariñu ci moromam waaye nee na loolu ma leen def ay ay waasoo ki jiir yu bokkut ak yi yëf bu mu tax ngeen jàpp ne couleuru kii ak couleur kee moo gën déedéet inna akramakum inda allahi atqaakum man li may natte ci ku ñëw ci man mooy ki gën a ragal yàlla ku gën a ragal yàlla rek mooy nekk ci kaw ka ca des topp ca nu waaye gën a ragal yàlla rek gën ma koo jege inna allaha alimun xabir yàlla moo xam lépp xam cosaanul mbir yépp amul lum dañul kumpa lépp la dañ kumpa loolu bu amee rek dañuy xam nekkoon kon système éducatif war naa judd ndax yàlla Euh, ku nekk am na nu mel yóbbu la fenn te yow la nga war a jàng da nga koo war a adapté ak sa socio culturel lu fa nga nekk kon ku nekk da ngay am sa système éducatif bopp moom sa njàngum bopp moo xam ne nii danga koy sof ci say culture bopp sa aada bopp sa cosaani bopp sa diine bopp kon tomb boobu mën naa koo épuisé foofu daa di ñëw ci lan mooy système éducatif kon système éducatif man ni ma ko déggee du jàggee nii institution yi rek mooy système bi tey jii misaal bi may joxe fii ci hôpitalu Touba bi mën nañ ne ab hôpital a ngi nii waaye à vrai diir du hôpital ab tabax la bu taxaw ndax biñ ko inauguré ba léegi faw mu am ay médecins yu fa nekk faw mu am ay sages-femmes yu fa nekk faw mu am ay infirmier yu fa nekk fokk mu am personnel fokk mu am équipement ñu doog a liikat lii kat ab hôpital kon un système éducatif du institution yi rek cala waaye école yi cala école yu ndaw yi école yu digg doomu yi ak école yu mag ya ñay jàngale ci biir école yi day dugg ci biir la ñuy jàngale day dugg ci biir téere ya ñuy jàngale day dugg ci biir ña bind téere ya ak lañ bind ti lañ bind ca biir téere ya war koo jàngal gone yi day dugg ci biir formation ya ñuy forme maître ya ak professeurs yi day dugg ci biir ndax formation dafa war a continuer waruñoo bàyyi rek ne jàngaleel rek bàyyi la noonu ndax sëñ Bay Jaxate wala sëñ Moussa Ka xawma ko ci wax bayit bi rek laa mokkal dane àdduna day warangiku jamono di warangiku ku toog ci luy warangiku noo mën a def warangiku adduna day warange ko ñun ñëpp jàng nañ ko al ardu taduru hawla nafsiha wa a shams la terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil loolu ñun ñëpp xam nañ ko jàng nañ ko ci ci laara ja kon adduna day warange ko loolu lu ñëpp gis la waaye jamono it day warange ko jamono mooy liy xew ci biir àdduna ndax la xewoon jamonoy njaajaan njaay fi tollu xewul ci jamono ji kon jamono day warange ko ku toog ci luy warangeku nag noo mën a def warangeku kon formation yooyu daf cee bokk dañ leen di war a former di leen former waat nga xam ne at mi war nañ cee mën a am ñaari formation ba ñett ba ndax àdduna lii xew mu koy indi ñiy jàngale dañ ko war a ànd ak moom di ko jàngalaale xale itam yamul foofu même euh, la recherche day dugg ci biir recherche yi war a def ngeen naaw jàngee ba noppi day war a dugg ci biir njàngum alquran mii ak njàngum diine mii nga xam ne ba mu fi duggee léegi ëpp na léegi mu mat junni at dafa war a dugg ci biir kenn waru ko génn ci biir yooyu yëpp nag bu dajee te àgg fa mu war a àgg nag ba léegi système bi matagul il faut mu am accès et équité accès mooy mu àgg fa mu war a àgg ñëpp mën cee jot équité mooy mu ñu ñu jot ce cee jotin wa jaadu ginnaaw bu loolu lépp matee nag gouvernement bi fi nekk bu mën a doon rek mu encadré ko encadré ko ba nga xam ne nii way jur wa nekk barab sàngam te loxoom jotul ginnaawam doomam fokk mu jàng loolu mooy encadrement bi ci gouvernement bi wala dugal ma joxe foofu benn parenthèse doog a jàll boo dikkee boo demee Amérique way jur wi dañ koy sakkal bépp bunt lay wum am wum mën a am ngir doom ji bañ a boo nee sama doom de awma lu ma ko yóbbu école ñu ne la sa yoon nekku ci demal fee ci rii bu gën a jege nga taxaw fa oto oto école ba dana fa jaar nga jàpp ci loxoom dugal ko ci mu dem jàngi heure sàngam dana wàcc taxawaat fa jël sakkal nañ ko aw lay awma kaye awma big awma kii ñu ne la sa yoon nekku ci ñun ñoo la koy jox awma lu ma faye ñu ne la fayoo parce que foofu kenn du fay njàngum gone nga ne sama doom amul lu lu ma ko jox mu lekk xam nga xale buy dem dañuy wax li ñuy wax lunch bag dañ lay defal ay lekk nga yóbbaale bu añ jote ngaañ boo ko amul ñu ne la euh, ñoo koy jox même boo wuteel lay ne wërta lekk lekk sàngam ak sàngam sax danañ leen la demal ci sa médecin mu justifier loolu nga jox ñu ko ciw këyit ñu mën koo jox loolu mu war a lekk yow ci sa bopp boo demee ne amat awma doole ba nga xam ne bu ñëwee duma ko mën a dundal ci kër gi am na programme bu ñu lay dugal bu ñuy wax food stamps programme nga xam ne da ngay dem ñu jox la ay monnaie local monnaie locale maanaam du xaalis yi nii waaye këyit la boo xam ne nii da nga ci mën a jënd ay lekk ak ay naan ak li nga soxla ngir dund. bu ñu demee ba gis ne yow mii licito dangay ngay drogué woo wala da ngay naan ba sa doom ji bu ñu la bàyyeek moom am njàngam du avancé ñu nangu sa doom téye ko jàngal ko ndax dañ naa la doom ji yaa ko jur waaye moomoo kon ab gouvernement noonu la war a encadrer loolu lépp nag bu dajee voilà un système éducatif performant loolu la ñuy doog a am système éducatif kon fii toog ñi toog ñëpp war nañoo xam kon su système éducatif baax na wala baaxul jàkk na walla jegul néew ma lépp a bon waaye man damay jéem a wax li ci bon waaye du lépp am mbir moom lépp mënta maase bon waaye loolu bu ñu ko jeexalee dem ci beneen tomb tomb bi ñuy dem mooy système éducatif bi fi nekk euh, ku ko fi dugal ak lu tax mu dugg fi ak kañ la fi dugg euh, damay njëkk a wax benn tubaab bu ñuy wax Jules Turgan am na téere bu mu bind téere bi sax defe naa ma jama boo seetee sa boîte yónnaa na yónnee naa la ko ci téere bi mu ngi ko tuddee la Sénégal sa colonisation par l'enseignement populaire loolu tur wi rek ça veut tout dire tur wi rek tur mu tuddee téere bi rek mooy Sénégal nu ñuy def ba coloniser ko te jaaree ko ci njàng bi te loolu mi ngi ko bindoon 1880 ñu ne bismillah mu wax ca la mu wax lépp nag ay njombe yu bari waaye retenir naa ci ñaari njombe yu garaaw yoo xam ne nii téere bi yëpp ay njombe la yu muy wax ne noonu lañ war a def ngir not ñu nga xam ne kon jàng école bi ñëwu fi pour jàngal ñu waaye dafay ñëw pour not ñu ci biir téere bi dafa wax lii dafa wax ne dañu yu baree bari la waaye dama ciy jël ñaar yu am solo ndax daa concerné lii may wax daf na dañuy fonde à Saint-Louis booba Saint-Louis mooy mooy capitale bi une école exclusivement pour les nègres nee na dañuy taxawal école boo xam ne nit ñu ñuul ñi dong ngay tax ñu taxawal ko yi attirer les chefs les fils de chef nee na fexe ba doomi buur yi dugg ci daa ne influent par des cadeaux et des fêtes bu ko defee ñu di leen influencer ci ay cadeaux yu ñu leen di jox ak ay fêtes yu ñu leen di jox ngir lan xale yi ñee leen ba ba loolu mën a attirer xale yépp ñu dugg xam nga su fekkoon ne ñoom tubaab yi ñoo ñëwoon sax di jàngale nga mën a wax waaye dañuy bëgg sun waa dëkk jàngale ba yàqu yàqal ñu nag sunuy gane nga xam ne ñoom tax duñ taxaw di yàqu waaye dañuy jël xeex bi fexe ba former ñu leen ko xeexal loolu benn la ba ca tege mu ne mii suur sourdement la puissance des marabouts mii ne xam nga miin mooy nga taf dara benn ab bomb mu explosé fenn waaye da ko àbbu baat bi rek maam daf ne nañ fexe ba doole ji sëriñ si am ñu màbb ko suur sourdement mooy te buñ ko yëg nañ ko mabbu te bu sëñ bi xam ne niñ koy mabbu bu taalibe yi xam ne nañ koy mabbu bu kenn xam ne nañ koy mabbu waaye nañ ko mabbu daat ne sans la combattre ouvertement waaye nag buñ ko xeex ci fés nañ ko mabbu te buñ ko mabbi ci ak fés kon ñaari point yi te tax ma jël ko dafa concerner nit ñi ak ak sëriñ si te ñun nit ñi ak sëriñ si ñoo fi nekk booba nit ñee fi nekk mooy population bi ak sëriñ si nga xam ne ñoo doon jàng parce que boobu école amu fi école am école tubaab bi yàggu fi yàggu fi bam fi nekkeeg léegi ña téeméeri at yi daanaka ci ci ci lay door a tàmbali di fi nekk te booba kenn nangu wute jàng Paul Marty mi ngi koy wax ci téere mu ne booba kenn nangu wute jàng da dem école yi doo fekk kenn ñëpp alxuraan ak diine lañ daan jàng te dañ daan jàng nag ci jamono yooyu mboolem science yi nga gis dañ ko daan jàng piir dafa amoon université Tombouctou dafa amoon université Maroc dañ daan ñëw di jàng si Tombouctou lépp science science physique science naturelle mathématique chimie astronomie astrologie bépp xam-xam tibb mooy médecine xam-xam yépp lañ ko daan jàng di ko xam di ko xam di ko gën a xam tubaab yi ñoom bërki démb lañ fi ñëw andi fi école boo xam ne nii andi wuñ ko ngir yàlla dañ ko war andi ngir yëlla ngir ñun ko colonise ndax Jules Turgan mii ma leen liiral lii mu wax loolu firnde la loolu nag Jules Turgan loolu wax naa la ne 1880 la ko bind ñu dem ba 1882 nga xam ne ñaari at lañ ci teg ku ñuy wax Jules Ferry neen Jules ñëw na kii Jules Turgan la tudd kii tudd Jules Ferry xaw ma dañ koo déggoo xaw ma seen Jules yi ndax kii Jules la kii Jules la bi mu ñëwee moom moo nekkoon ministre ministre de l'instruction publique en France en 1982 mu daal di ne daal daal di def loi daal def loi pour soppi njàng mi daal di ne daal def ay tomb juróomi tomb daal ne loi bi xale yi dañoo war a jàng ñoom ñépp obligatoirement nga xam ne généralement obligatoirement moom la ñépp jàng te ñu jàng ci force te yooyu yëpp yu baax la ba pare nee nañ jàng gratuite loolu it lu baax la jàngal xale yi forcement baax na jàngal xale yi gratuitement baax na jàngal xale yi ci matale itam baax na mu daan ne itam xale yi nañ leen tàmbalee lu gàtt gàtt 6 ans ba 13 ans moom nañ leen dugal ci école bi xam na li muy def bu baax a baax ndax xale diggante boobu rek nga ko mën a soppee 6 ans yi muy def ndayam lu ca ndeyam defoon bu baaxee xayrul waaye bu baaxut man boo ma ko joxee bu ma ko téyee 6 mois dootoo xamati la ndeyam defoon ci moom xale boobu xale lépp loo bëgg dindi ci moom ci diggante boobu nga koy dindee mu ne 6 ans à 13 ans xaj na boo passé 13 ans nag jëmaat yeneen 6 ans da nga mën a soppi waaye soppi bi dana difficile tuuti lee moom matt gu tooy la nu la neex mu mel ni bu passé 13 ans 13 ans matt gi dana digga nekk tooy ak boo amee patience mu man a jub boo amul patience mu damm. bu ko jéggee nag day wow koro waaye inna allaha yahdi man yasha yàlla mën naa ñëw jubal ko ko neex waaye foofu moom ab yar ci diggante boobu lañ lañ ko soxla tomb ba ca mujj nag nga xam ne man moom laa tuddee pompe terre bu nëb bi mooy njàng mi nag lépp nañ ci génne yàlla bu ci yàlla am benn place yàlla moom bu nekkee rabu samawaat yi na ko nekk waaye rabul ardi moom bu mu ko fi nekkee loolu la Jules wax ñeent yépp baax na waaye bii mu mujj wax biñ ci tegee benn at ndax 1882 laa la wax 1883 la sëñ Touba woote fii ci Mbàkke Kajoor moom it changé programme parce que sulféri yi ñoom amoon nañ école boo xam ne daa dugaloon diine ji sulféri yi en 1882 mu changé programme bi ne nañ ci génne yàlla ñu teg ci un an sëñ tam yonente bi sallallahu alayhi wax ko ne ko rabbi asxaabaka bi himma wala turabbihim bi dars yow it soppil programme day mel ni sëñ bi da leen a toppe mbooro nag man loolu am ak seetlu la rek lu lu lu ma def daa mel ne lu lu ñu def sëñ bi dana def ci ay années yu néew wala ay weer yu néew loo xam ne day contredire loolu sëñ bi même li Jules Ferry wax moom la wax ndax boo bu ñu jàngatee mbindum sëñ bi fi mu ne nañ jàngal ñépp ba pare forcé leen ci njàng bi sëñ bi bu mu ne fasaari'u turran ila taallumi fa sax fa saari'u turran ila taallumi yéen ñëpp dem leen jàngi loolu dugal na ñaar yëpp dugal na ne ñëpp dem jàngi kon kon bàyyiwul kenn dugal na ni itam ndigal la murit ndigal ab jullit ndigal lay déglu wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu force kon na ñëpp jàngi kon dugal na fa saari'u turran ila taallumi wa jaahidu nufusa bi tafahumi bi mu ne nañ jàngal xale yi bu kenn fay na nekk gratuitement sëñ Tuubaa tam loolu la wax taa taallamu l ilma li wajhi llahi duna al munafasati wa tabahi kon booy jàng da nga war a jàng ngir yàlla waaye ñiy jàngale itam dañoo war a jàngale ngir yàlla ñun jàngale di fayu sax ñun ñun xamuñu ko ñun du cosaan ci noonu du cosaan ci diine ñi daan jàng fii ñépp dañ leen daan jàngal ñooy dem di yalwaani euh, ñooy lijjanti waaye fay moom lu xew la rek waaye mës am ñun du woon suñ suñ cosaan bi nga xam ne nag mook sëñ bi dañ ko opposé diamétralement mooy bim mu ne nañ ci génne yàlla sëñ Tuubaa moom dane fa qaddimu taalluman fa euh, nu mu ko waxee euh, fa qaddimu la aqaida sunniya moom yàlla jooju ñuy wax noo seulement ñu génne ko ci wala yaasu billaahi waaye nañ ko ci jiital téere yëpp ñu bindal toujours yàlla ji lay jiital te suur ci xaar boo ko gisee iman lay طيب إيمانكم يا أيها الصغار لمن له الصغار والكبار أن تؤمنوا بالله إلى إلى آخره يلا لي جيتل دنجا أول واجب على المريد تحصيل ذاته من التوحيد كن فوفو دا في ورق شيلفيري فوفو موم دما في دون feelu rek silféer di ko wax ne ko andi nga ab changement waaye am na tam ku andi changement bu gën a rafet sa changement waaye dama koy cof xañ na dinaa ci ñëwaat ci mujj ga kon dafa mel ne noonu la duggee Sénégal te Zulféry bi mu waxee loolu tam dafa am beneen koo xam ne nii ministre la woon ca France ministre en tout cas xaw ma ban ministère la yoroon waaye ministre la woon moom itam am na changement bu mu dugaloon defe naa après nekkoon na ministre ministre de l'enseignement supérieur ñu koy wax René goble moom dane yàlla jooju ñu ci génne non seulement dañ ko cee war a génne waaye ñiy jàngale sax buñ bu nitug yàlla sax bu mu jàngalee nga xam ne permettre uñ ñuy jàngale di sol ay yooyu labbe di sol ndax dañuy bañ ñu influencer xale yi ñu dem ci dara ci diine nga xam ne ñoom dañuy bëgg a effacer diine complètement kon loolu système boobu nag mbokk yi moom la ñu andil mooy système bii ci nekk li tax ñu andi ko fi mooy lii ma la wax te euh, turgan mi wax ko Jules Ferry mii gis nga ne nañ ci génne yàlla te moom li ñuy wax laïcité parce que noonu la wax l'école doit être laïque et gratuite nangam nangam laïque googu nag moom moo ko firil boppam nee na mooy organiser le monde sans mooy ñu organiser àdduna bi ci génne ci yàlla kon ñoom seen mbir yëpp moom lu ñuy def mooy génne ci yàlla kon donc loolu mooy système bi nga xam ne moom lañ indi lii xew itam ñoom ñëpp koy xamandoo ñoom gone yi ñëpp lépp la ñu xam guerre yi nii guerre de la sécession première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale ak bombe bañ sànni woon ci Hiroshima ak Nagasaki ak yooyu yëpp la ñuy xam di ko mokkal di ci def ay examen di at mi di ci bind di ci caxante di def lépp fi mu toll boo duggeen ci école yi lépp la ñuy xam waaye koo ci ne xareb Samba Sadio mu ne looy wax nii li ngay wax làkk la am lépp koo ci ne euh, xareb Paate Badiane mu ne la luy loolu koo ci ne xareb somb mu ne la luy luy somb koo koo ci ne talaatay ndeer mu mu reetaan nga xam ne dañuy dem ba liñ moom sax dañuy dañ koy marginaliser dañ koy xeeb loolu nag mooy système bi fi tubaab bi andi moom lii la ci bëggoon lii lii la ci bëggoon xaj na réussiru ko 100 pour cent te li tax réussiru ko 100 pour cent mooy sëñ Tuubaa mi ñu fi bokkal nekk la de sëñ Tuubaa mi ñu fi bokkal nekk sëñ Tuubaa wax naa ne dogan ko nag dem gi wolof nasraanu te kon billahi ñëpp dem niiraan xam ngeen wolof nasraanu mooy la kon pièce bi ñuy lalal ñun ñëpp ci doon dugg ñun ñëpp ci doon dugg waaye lu tax dugguñu ci moom sëñ Tuubaa la moom moo tax war luñ ko sant doyut luñ ko sant doyut <laughs> maa ngi koy jégalu bu baax sax man baaxuwuma lii sax man nit nekkuma ku émotif ku ku am émotion mais day am loo xam ne boo koy wax la lay dikkal doo ko yëg léegi ma ñëw ci langue bi ñu koy jànge langue bi itam dafa am problème parce que yow langue boo xam ne nii doo ko wax ak sa ndey doo ko wax ak sa baay doo ko wax ak say xarit boo demee ca école ba sax doo ko professeur ba lay jàngal dong nga koy waxal boo génnee doo ko wax ak élève doo ko wax ak say bokk léegi làkk boobu pour nga mën ko maîtriser ba mën caa jàng ay concept yu élevé ak ay sciences yu rigoure loolu yéen ñii ku ne xam ngeen loolu c'est impossible lu jafe la moo tax xale yi ay jàmbaar lañ ni ñu manee ñu leen di jàngal ci langue boo xam ne ni nampuñu ko ba pare ñuy am note yi ñu am dem ba koy jonganteeg tubaab yi ba boo demee ci université yu mag yi fekk leen fa ñooñu ku leen jàngaloon ci wolof ñu ñu ñu tas réew mi ay jàmbaar lañ moo tax langue bi dafa am problème bu mag a mag a mag a mag Cheikh Anta Diop day wax ne te ku ne xam na ne boroom xam-xam bu mag la. dafa wax ne un point qui se en engendre une ligne nee na loolu boo ko bëggoon jàngal gone wolof soxla nga juróom benn at pour mu mën koo xam te loolu mooy boo bëggee rëdd da ngay tomb xëcc loolu dong la xale boo waxoon ne ko ne tomb buy ratatu tomb buy watatu moo diw rëdd dana xam tomb dina xam luy watatu wala mu ne euh, euh, euh, wala dina xam rëdd waaye boo wooyee ab xale nga ñëw ne ko un point qui sa déplace engendre une ligne du xam un point du xam sa déplace dama jël sax verbe la ca nekk ci wàllu grammaire du xam euh, engendrer du ko xam du xam ligne du xam dara kon juróom benni at lay toog nga deg ko mën a wax loolu rek mu doog ko xam kon kooku boo ko tegee ci ab école di ko jàngal làkk woowu tardé loo ko te lakk yi li ngay li ngay lakk dafay ànd ak sa mboor ak sa mbatit maanaam sa culture ak sa histoire dafay taxañoo ak làkk wi tey jii su ma bëggoon a wax ne sëñ Abibu dey li nga def sedd na sama xol ci tubaab dama naa quoi ah, sëñ Abibu ce que tu as m'a fait chaud au cœur chaud chaud chaud mooy tàng li nga def tàng na sama xol laa koy wax mu doog a tekki sedd na sama xol ci tubaab te ñun lu ñu jàngal ñun li ñu jàngal mooy lii sedd na sama xol parce que France dafa sedd ñoom tàngoor moo leen neex moo tax lu neex ñu koy tuddee lu tàng lii dafa tàng dafa chaud dafa neex dafa dafa dafa sedd sedd na sama xol. arab tam boo demee xurrat xurratul ay ku nekk langue ba nga ba nga nàmp la muy tekki du bokk ak yow sa làkk moo tax làkk boo koy jàng day an day am boo koy jàng ci làkku jàmbur da ngay am problème toujours. nga xam ne sedd na sama xol ñoom tàng na sama xol lañuy wax mu doog a sedd mu doog firi ci nun sedd na sama xol kon loolu làkk bi moo demee noonu may ndokkeel bu baax sëriñ ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wolof sëñ Jili Kebe defe naa temps yi bind na ab téere boo xam ne nii euh, ci wàllu grammaire wolof lu lu yaatu la ci lu am solo la ci ak ñeneen yi ci yëngu am na ci ñoo xam ne ni xawma seen tur waaye ñooñu ñu mat a félicité lañ ndax langue wi nga nàmp képp ku koy jëmale kanam rek maanaam war nañ laa encouragé bu baax a baax a baax la ci tege mooy effet yi nga xam ne nii moom lay yàgg a gis njàngum école mi di ko def ci gone yi xam nga langue boo xam ne nii yow su fekkee da ngay euh, ñun dañoo nekk am réew moo xam ne dañoo coloniser ñuy jàng Euh, làkku kañu colonisé woon dégg nga di jànge ci système éducatif kañu colonisé woon di jàng téere yi kañu colonisé woon di darajawoo diplôme ya ñu kañu colonisé woon di jox loolu mënta ñàkk effet ci kooku ci kooku ñu colonisé ndax moom ma ngay euh, dañoo colonisé réewam mooy jànge ci téere ka ko colonisé di jànge ci ci làkku ka ko colonisé ka ko colonisé moo koy jox ay diplôme kon loolu mënta ñàkk def ay effet effet yañ xamoon nag léegi nag daa wuteeg jamono yi jamono ji damay wax ne sëñ Touba man toujours sëñ Touba ji mooy yàq seen liggéey ñoom waaye li ñu bëggoon lépp rek mooy lii may bëgg a wax nga xam ne yàgg nañ koo seetlu ci ñi jàng tubaab boo demoon ca àll ba masalan di jàng tàmbule di am ay examen di admis tàmbule dégg français mën a bind français mën a lire da ngay jàpp ne yow da ngaa suufe woon léegi nag dégg tubaab kaweel la loolu ngay jàpp da jàpp ne yow da nekkoon fu suufe ginnaaw bi nga manee làkk tubaab nag mën koo bind léegi nag da ngaa kawe léegi nag loolu moo lay def nga tàmbalee xeeb sax sa way jur yàlla jur loolu yàgg nañ ko seetlu ci ñoom tàmbali euh, di leen xaw a mel ne ku leen di kii tàmbali di tànn yeneen xarit ak i bokk yu bokkut ak ya nga am col ga nga daan sol sax muy colug muri wala colug ga nga baaxoo rek moo xam murit nga wala laneen waaye colu ga nga baaxoo muy sa cosaan di sa aada da ngay tàmbali di sol ay costume ak yooyu ndax dangay gis sax day mel ne bo moom daal boo jàngee rek danga war a tàmbali di karawaatoo ko costume moo ko sol ay tubay tubaab bu ko defee mën naa dem ba feeñ ci sa sa fréquentation ña ngay sëyal ak yëpp nga bëgg koo baasee ci ku jàng tubaab léeg mu jural la nga tuxu ca foofa nga nekkoon daal di dem ca réewi tuba euh, ci euh, grande ville yi lu mel ne dakaarak ak Thiès ak Ndar ak foofa euh, tàmbali faa nekk nga xam ne rarement ngay ñëw village boo fa ñëwee daal jàppale benn étranger nga boo xam ne du nag doo nekk ci seen biir boo daan bay nga bàyyi bay boo daan bay nga bàyyi bay boo daan sàmm nga bàyyi sàmm boo daan napp nga bàyyi napp tey ñaan nag yàlla musal la ci ba faw nga xam ne da ngay jàpp ne daal yow nituk bureau nga koo xam ne da ngaa war a toog yor ay kii di signé ñu ñu lay ñu am ay titre kii directeur la war a nangam loola la sa bët di tege loolu nag lii ma lim fépp yépp nag seen négatif te dafa am ay conséquences économique graves ay conséquences économiques yu yu metti la ndax léegi su fekkee ki jàng ba am ay diplôme bàyyi na lam xamoon mbay ma bàyyi càmm ga bàyyi napp ga léegi kan moo nar a bay kan moo nar a sàmm kan moo nar a napp ñi xamut kon ñi xamul ñoo nar a bay ñi xamul ñoo nar a sàmmi ñi xamul ñoo nar a napp te fekk li ñu waroon a def du loolu li ñu waroon a def mooy toog foofee seen seen njàng moomee war leen a mën a dimbale ci seen mbay moomee seen njàng moomee war leen a mën a dimbale ci seen napp googee seen càmm ga itam njàng ma njàng war leen cee mën a dimbale waaye bu bu fekkee ka jàng moom xeeb na lam lam cosaanoo ca mbay maa ngi jàng kii wa ndax diplôme yam tàmbalee am ba tax mu gedd ko kon ñi xamut ñoo fay tege bu ko defee mbay mi du avancé mooy sa conséquence économique yu grave lay am te États-Unis gée man nekk naa États-Unis lu mat fukki at xam naa fa lu bari gis nga baykat yi ñoo ñooy embauché intellectuel fii moom baykat yi lañ gën a xeeb fee baykat baykat bu nekk ci États-Unis nga dem fa nga de euh, euh, lim euh, li muy wut mooy ay diplômé ñooy ñëw di ko jàppale ci mbayam ñay sàmm ay diplômé ñooy ñëw di ko jàppale ci ci ci càmmam ñay napp ay diplômé ñooy ñëw di di ko jàppale ci ay ay nappam fii nag su fekkee ku ku am ay diplôme wala nga kawee ci njàng bàyyi bay bàyyi sàmm bàyyi napp secteur yooyu nga xam ne moo war a dundal ñi nii secteur yooyu mooy suuxe mooy mooy sooxe loolu tam ñu war ko cee bàyyi xel li may wax nii yéena ma ko gën a xam ñi toog fii ñii li may wax maa toog di wax rek waaye li may wax ñépp a ko xam ndax lu du ay lu ñuy jëli ci ay téere di andi ay réalité la yoo xam dañ ko dund ñun ñëpp koy dund ñun ñëpp ko yàgg gis waaw li ñuy tuddee ay débouché débouché académie boo ko déggee mooy ngay jàng di avancé xam nga da ngay def primaire def secondaire wala dem lycée foofu tam dafa am ay problème yu mag ndax ñi war a dem lycée te lycée yi doyuñu duñ dem lycée wala lycée yi sori leen man xam ne ni mënatuñoo dem ñu daal di kale ña rëcc ba dem lycée ba dem war a dem université mënuñoo dem ci université ndax amuñu fa palace wala orienté wuñu leen ñoom itam ñu nekk maneen mbooloo dégg nga bu ko defee muy mbooloo mu baari mu dajaloo mu mel ne kon état bi dafa dem créer mbooloo mu baari moo xam ne ni xamul fu mu leen di jëmee ndax ñee àgguñu lycée te xës nañ xeeb mbay xeeb xeeb xeeb càmm ba bëgguñu caa delloo dañuy tëgg a témbe ñeetim dem ba université amuñu place ñoom it te xës nañ am diplôme am na métier yoo xam ne nii euh, rusate nañ ko def ñu far tëgg a témbe muy mbooloo mu dul jeex nag muy mbooloo mu dul jeex boo xam ne nii li ñuy mujjee di dugg ci gaal yeeg di di di di di di di euh, bu ko defee mu mel ne dañ leen a tardeel ci ay année yu baari jël nañ année yu baaree baree baree bari tardeel leen te te yóbbuwuñ leen fenn mu amee tam li ñuy wax débouché professionnel mooy ñi nga xam ne moom jàng nañ ba dem université ba am seeni lijaasa waaye tam ñoom it amuñu liggéey ñu ngi toog rek te loolu tam ñu mel noonu ñoo mën a gën a créer am réew problème parce que dañuy jàpp ne état bi moom moo leen war a lijjanti liggéey bu ko defee état bi tam aanaat amaat beneen problème pour wutali leen liggéey ñoom te fekk ñoom li ñu waroon a def mooy wuti luñ def seen njàng moomee dimbale leen ca la ñuy def ndax njàng day dimbale ci nit ca la ngay def espace bu ndaw boo ko amoon fii te xam ne yow mbay mbay nga jàng espace boo xam ne daanaka ñiggante ñaari poto yi rek lay toll boo fi boo fi jiyee te xam mbay nga ji fi lu mel ne euh, ay ay limon ak yooyu boo muñee tuuti lee nga nga am loo dunde yow léegi nga am loo dundee ndax yàlla dafa bàyyi ci kaw suuf yàlla ku jox suuf ak asamaan deseeta loolu dara yi ci des yépp moom amul am am ay ay kii la suuf ku xañoon suuf xañ la asamaan daal te xañu ko kenn nga ne kon yàlla xañ na ma waaye yàlla bu la joxee suuf jox la asamaan jox na la lépp man ngaa dem bay wala nga dem sàmmi wala nga dem nappi wala nga dem commerce yi wala loo mën a def njàng moomee nga jàng nag am am lu mu la mën a jàppalee ca loolee ngay def ndax maa ngi fàttaliku jamono Abdou juuf dafa amoon ñoo xam ne nii dañoo génn am ay lijaasa waroon a liggéey te liggéeyuñ ñuy coow a coow bañ ne dañ leen di euh, jox liggéey te loolu tam injustice la ndax état bi mënta fere ci yow lu baree baree bari ci sam njàng def ay formation defal ay formation fay nga xam ne nit ñee ko fay ñun ñëpp a ko fay ñi jàng ak ñi jàngut kay jaay caaf fee wala kay dawal saret wala kat kay yor saako këriñ fee bu demee ca bitig ba lam jënd TVA yooyu ñuy dagg moom la ñuy yóbbuwaat trésor public di ca dagg di fayale nit ñi seenum njàng fi mu toll ñi jàng sax bu ñu yewu woon dëgg bu ñu jàngee ba noppi dañoo war a gërëm ñu ñàkk ñëpp ñàkk ñëpp liggéey ñëpp ndax ñoo ñoo fay seen jàng waaye duñ xalaate noonu dañuy jàpp ne daal maa jàng maa kawe maa am lijaasa sàngam te fekk lijaasa yi kee di toog di jaay di jaay keccax moo la ko jox kee toog di jaay caaf moo la ko jox kee dawal saret bee moo la ko jox yow li nga waroon a def mooy ne xëntewoo Euh, fexe ba ba am loo xam ne nii da nga ko apporteel réew mi ngir ñooñu mën caa jariñ ñooñu bi bi ñu leen wutalee liggéey euh, bu ñu leen wute bu ñu leen di jéem wutal liggéey te mënuñu leen wëggeel dañ leen a financé dañ leen a financé ñoom ñépp a perte ñoom ñépp a perte ndax ku mës am xamub xaalis nga jekk-jekk financé ko lañuy ñuy njëkk a def mooy dem ami boutique jënd ab costume ak karawaat ak i daal loolu lay ñuy njëkk a def daal di jëndu rajo Euh, bu xawee xaalis ba xawee bari mu dem jënd ab R4 bu màggat bu bu samedi jotee nga xam ne noonu ñuy def euh, daa ji di baali ànd ak ay coroog yooyu dem ci fanaanee fo bu ñu toogee tuuti xaalis ba ne mëng jeex xam nga loolu lu ko def mooy système bi ñu leen formé gis nga système bu sëñ Touba bii bu ñu noppee ci yow jërul ñu lay jox dara dañ lay bàyyi rek ñaanal la junni ba nga njëkk am moo ngay jëng dara di wëreelu di jaay bu bu boo toogee tuuti nga gis mu teg sa taabal